ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq tey ñaan yàlla tabaraka wa yàlla yal na yàlla boole ñu nangul yal na yàlla ñu jéggal yal na yàlla boole ñu defal ñu lépp li nga xamante ne bii bëgg nañu ko ci àdduna waaye it mu defal ñu lépp loo xamante ne bii yërmande àdduna la ak yërmande ak àllaaxira yal na yàlla guddal suñuy fan guddal seeni fan yéen ñi nga xamante ne bii yéenay safoo chaîne bi di Cherif Dabakh TV tey nag euh, ñu amaat euh, benn spécial ci émission yi nga xamante ne bi ñu ngi leen koy jagleel di waajal gàmm gi nga xamante ne bi ci la ñu jëm incha allahu rabbi muy gàmm 31 décembre bii di am fii ci amokat ci terrain bi nga xamante ne bi mooy terrain bu mag bi alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamante ne bi def nañ ko ay at ba tey ñu war koo fas yéene incha allahu rabbi bokkat ko ak sunu kilifa yu baax yi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñuy gunge saa su ne waaye jiital ci ki nga xamante ne bii moom moo woote woote bu rëy boobu muy Chérif Ibrahima Haydara Atijani ak képp koo xamante ni bii kilifaam nga wala xaritam nga wala soppeem nga wala euh, yaa ngi ci ñi nga xamante ne bii euh, waa këram lañu waa mbokkam lañu ak kum mën a doon rawatina it nag ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo bokk waaso wi ñoo bokk li nga xamante ne bii moom la ñuy woote muy benn baat bi nga xamante ne bii moom la yàlla waxoon nii taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum alla naabuda illa allaha wala nushrika bi wala nushriku bihi shay'a mooy ñi nga xamante ne bi fa tabaarakallahu foo leen seen xam ne lislaama leen yëkkati foo leen seen xam ne it ni fa tabaarakallahu lépp loo xamante ne bi luy diine la ci la ñuy dox waaye ci la ñuy wax seen gont seen bés seen lépp dañ koo jaay sunu borom subhaanahu wa taala ngir dundal diine ji nga xamante ne bi moom la sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam andil ñu ci mbokk yooyu ci kilifa yu baax yooyu ñu dalal ci kenn tey fekk si ko fi nga xamante ne bii mooy euh, ci barabam fekk si ko ci këram fekk si ko fi nga xamante ne bii képp ku fi dugg yëg ni fa tabaarakallaahu jaamukaayu yàlla la ndax kër gu ñuy jaamoo yàlla boo fa duggee rek xam ko mbokk yi ki ñu leen bëgg a présenté tey dootuñu leen ko présenté ndax àdduna yëpp xam nañu ko du mu Sénégal rek waaye àdduna bi yëpp ko xam ndax imam international la bu ñu ko waxee bu ñu ko wanee ñëpp dinañ xam ki ñu ko bëgg ki ñu bëgg a wax kan la jarul ñu leen koy présenté incha allahu rabbi ndax àdduna wérngal këpp xam nañu ko kooku mooy kan kooku mooy jaam borom jaam a ngi jaamu bi nga xamante ne bii wër na Sénégal ba àdduna yépp képp ku koy jàng sa xol yëg yàlla waaye képp ku koy déglu it sa xol dina gën a sell kooku mu la ñu bëgg dalal tey incha allahu rabbi séq ak moom waxtaan muy alxaaji imam Moussa Gueye mi ngeen xam yéen ñëpp bi nga xamante ni fa tabaarakallahu turam wër na àdduna waaye jëmmam it tabaarakallahu bu demul it eh, eh, média bi tasal na ko ci àdduna bi yëpp ba àdduna bi yëpp xam ko kon du ñu def rek incha allahu rabbi lu dul bàyyi suñu imam bu baax bi imam bu sell bi ñu koy jéggalu bu baax ci toogandoog moom ci kaw bi ñu toogeek moom ci kaw eh, di ko bàyyi rek mu nuyoo ak ñi nga xamante ne bi ñooy suivre ak di topp Cherif Dabakh TV bi yëpp ñu bàyyi ko mu nuyoog ñoom rek bu paree incha allahu rabbi ñu dugg ak moom ci laaj yi incha allah kon mbokk yi imaam a ngi kon imaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. salaam wa rahmatullahi taala wa eh, ñu ngi delloo nuyoo di leen dalal di leen wax ni seen këru bopp ngeen ñëw di leen ziyaar it di leen bégge fa tabaarakallah asnal di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy toppikati Chérif Dabakh TV di nuyu bépp jullit di leen ziar di leen balu it àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ci mbaaxam yàlla nañu boole baal sunu bakkaar yépp ci dara jenant bi alayhi salaatu wassalaam fa tabaarakallaahu mbokk yi nii lañu li ko liggéey woon noonu lañ rek lañ koy doxale incha allah euh, ki ngeen gis yéen ñëpp ko xam xam ko ci waar wi waar wi nga xam ni moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ay saxaaba wuutu ko ay taabi'i wuutu ko ba mu yegsi ci sunu mag ñu baax ñi waaye muy doxit ba yegsi ci seen loxo ñoom ñu téye ko téye bu rafet tabaarakallaahu yàlla bu yàlla tas yaakaar bi nga xamante ne bii téel nañ ñu ko suñu diine ji di ñu ko jàngal ñun lépp lu ñu jàngalit yàlla na ci yàlla def barke imam bu ñu bëggoon a xam tuuti ci li nga xamante ni mooy wàllu gàmm euh, baatu gàmmu xaw ma ndax wolof la wala wala wala arab la wala wala lu mu doon bu ñu bëggoon a xam baatu gàmmu ak fan la démarré ba tax àdduna bi yépp foo dem rek dégg gàmmu li ma ci jot a xam ci sama xam-xam bu gàtt mooy euh, baat bi di gàmmu yàgg na fi lool yàgg na fi lool tamit doon wëndeelu ci biir aada am na cosaan yi fi nekkoon sama mbokki lébu yi daan nañu ko di defe seen loola ñu daan tudde gàmmu xam ni day ànd ak tëgg ak fecc mm-hmm. mu màcc lool ci wàllu aada mm-hmm. daan ci woy gi gàmmu ku ci ñaaw de te ku ci rafet maa la jur ci sama biir yàgg na di jib mm-hmm. waaye booba du li ñu gisee nii gàmmu tey booba seen yëfi aada lañ daan def boole tëgg ma pecc ma feet la daan doon bu rëy ñu tudde ko gàmmu sunu maam Seydil Hadj Malick Sy alayhi ridwan Malick jël baat boobu nag moom jubale ko ci woote gi muy woote at mu nekk ci rabiul awal ci fukki fan yeeg ñaar yi yonent bi ganee àdduna alayhi salaatu mu woote ci nag màggal guddi gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ganee àdduna muy laylatul mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam mu tudde loolu nag gàmmu moom tamit pour gàmmu googu nag di dema dema dema dem ba lekk na bee tey ba fu ñu nee gàmmu rek dëgg la sa xel dina dem ci màggal guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye fu ñu nee gàmmu wax dëgg yàlla sa xel tuyaawoon day jëkk jàpp dëgg dëgg gàmmu tuyaawoon sax dañ ko ciy toftale gàmmu tuyaawoon gàmmu tuyaawoon donte la yaatu na ba ñépp tabaarakallah wax sanal xaalixiina seen cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa tax mag ñu baax ñi fii di ko taxawe at mu jot di fàttaliku di màggal guddi gi nga xam ni ci la yonent bi sallallahu alayhi wa gane àddina mm-hmm. mën nañ koo delloo it donte am na ñu koy tuddee naan bidaa la lu ñu sos ginnaaw yonent bi la hmm. te lépp lu ñu sos ginnaaw yonent bi ñu wax ni bidaa la hmm. ah, waaye li mag ñi naan bidaa bu rafet am na hmm. donte dañ ko sos ginnaaw yonent bi waaye yi ñu sos ginnaaw yonent bi muy dox te lislaam nangu ko bari na mas naa dégg ci sëñ ci Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala mu joxe ci lay bu gàtt ba mu laajee ñi naan gàmmu biddaa la ma ñu leen lu tax ngeen tudd ko biddaa nee na ñu ni ma lépp lu fi yonent bi bàyyiwul rekk ñu def ko ginnaawam biddaa la nee na ma xam ni bàyyiwu fi màngo tàndarma la fi bàyyi sallallahu alayhi wa <laughs> jeex muy tàntu bu gàtt <laughs> mu ah? ba noppi it yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy jógee màkk astafirullah madina di aj ci màkk gëléem ak yi fas lañu waroon ak yooyu de waaye léegi yu aji màkk dafa di nga war loo xam ne yonent bi bàyyi ma ko fi woon alayhi wassalaam ba ci sunu téere alquranul karim bi kàng bi fatiha baqara ba ñu ko nosee ni toftale ko yonent bi bàyyi woo ko woon noonu kon gàmmu ba ñu laajee yonent bi ñu ko alayhi salaatu wasalaam dañu la gis altine bu jot danga koy woor mu ne waaw ci laa juddu ma ciy sant yàlla waaw comme altine bu jot daan la woor ñëw gàmmu tamit ci rabiul awal weeru gàmmu bu ñëwee weeram bi mu gane àdduna ñëw ñu dàkk dat booba tamit ñoom tamit def ci li nga xam ni moom du toog di ko defal boppam mm-hmm. ndax modestem sallallahu alayhi wa sallam waaye njaboot gu xam-xàmmee kay mm-hmm. sa cofeel mën na la yóbbu ba nekk ba nga ko koy gàmmul at mu jot mm-hmm. waaw loolu daal laa déggee gàmm alhamdulilahi rabbil alamin euh, leçon yu bees dafa génnaat yoo xamante ne bi ci euh, diir bu gàtt ñu jàng ci lu bare bare bare bare tabarakallahu eh, ci biir gàmm boobu ñu gis ni am na gàmm guy am eh, at mu jot te Chérif Ibrahima Haydara di ko def fii ci terrain bi nekk fii ci amoo kaat ñu ci doon laaj eh, nan nga gisee gàmm googu gàmm ga di gàmm gi suñu sang bu tedd bi Chérif Alxaaji Ibrahima Haydara dama koy wax ne yitteem mm-hmm. <laughs> dafa àgg ci da fàtte ni sax ne dem na màkk ba ñëw Chérif Ibrahima rek ngay dégg mhm. nag moo ko tànnee noonu doxalee ko noonu ndax dafa dem màkk ñëw teg ay bagage rek dem dox yu am xaarul sax ñu ko fay siyaare gi <laughs> mu nekk di borom yitte at mu jotit mu organiser fii ci diggante amoo 4 5 6 littoral bi yëpp wala géejawaay yëpp wala sax dëkk bi yëpp walla sax réew yëpp wala sax muy sagu jullite àdduna bi yëpp mm-hmm. gàmmu gi shérif daf ci demee yéeneem ci anam goo xam ne wax dëgg yàlla ku teew ca gàmmu ga di nga ca jànloog yéeneem bu réy boobu mu am te jëme ko ci maamam dugal ko ci biir sante ko boroomam subhaanahu wa ci dogal gi yàlla dogal ci mbaaxam subhaanahu wa taala moom shérif mu nekk di satu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañu wax ni ñett alalu yàlla la ak bokk alalu yàlla la ak njureel alalu yàlla la ak cofeel alalu yàlla la mm-hmm. ñett yi alalu yàlla mm-hmm. kenn ñaanul yàlla ni ko na ma diw jur mm-hmm. mbaa na diw di sama maam kenn ñaanu ko ko alalam la moo seet fu ko neex subhaanahu wa mu boole la foofa noonu la ni seete ca na mu ko neexe mu boole shérif ci alibitu rasul sallallahu alayhi wa sallam kenn ñaanul yàlla it ni ko dama euh, jur diw wala naa jur diw mm-hmm. moo tax njureel ñu ni tamit alalu yàlla la subhanahu wa mm-hmm. kenn ñaanul yàlla it ni ko may ma ma sopp diw di cofeel moomu nga xam ni yàlla ko moom ba mu jeex mm-hmm. ndax damay wax ni ki yàlla nattoo mu sopp ak koo mën a sopp ak koo mën a bëgg ma ni ki bëgg bëggul ki mu bëgg waaye dafa bëgg ku mu yëgagul ne moom la bëgg ndax jaam boroomam rek la bëgg moo tax alalu yàlla la <laughs> du dëgg moo tax euh, boo gisee ñu mel ni ñu mel ci nitu yàlla yi mel ko ci àll biit rasul sallallahu alayhi wa sallam sunu cofeel ci ñoom ak sunu xiirte ci ñoom xam nga lu ko waral mm-hmm. yàlla mi ñu sopp lu dul moom jëmmi yàlla di ñu xeeñ ci ñoom moo ñu booleeg suñu cofeel ci ñoom <laughs> loolu la mais jaam boromam rekk la sopp damay wax ni boo gisee cofeel di sonal ki sopp bay sonal kamu sopp sax mu doon li tubaab di wax espèce u euh, télépathie mm-hmm. xam nga ki sopp ba amatu ca sago dafa yanu lu mu moomul mm-hmm. di ko jëme ci ku ko moomul looloo leen di sonal ñoom ñaar ñëpp <laughs> loolu di sonal ñoom ñaar ñëpp kii li mu yanu moomu ko ki mu ko jëmee ci moom moomu ko ki moom mm-hmm. cofeel ci boppam kenn rekk la mooy buur bi di Mawlaana tabaraka wa taala ndax am cofeel ci boppam mhm. cofeel googu mu am ci boppam ba amaale ko ci ñun moo tax mu sàkk nañuy ay jaamam subhanahu wa loolu moo tax shérif ba xam naa ni euh, siddit yooyu ko xam ba ba at mu jot mu mhm. tànn fa tabaarakallah sunu xaaliqina woo mbokk jullit yépp tàntal maamam tànt boo xam ne sag la mhm. ci amoo gépp man damay wax at mu jot ma ni ay waa shérif bayal bii muy tànt ba mu daj di ko askanale maamam di ko def ngir jëmbi yàlla mani ni nen ñu dimbali tuddeel nu ko ko tuddeel nu ko bayal boobu la sagale sagaleel nu ko ko ah sagaleel nu ko ko ndax li mu fiy def kenn deful lu ko ëpp bayal boo xam ne wax dëgg yàlla la ko mën a dendaleel ci luy dellu ci mën a lu mën a bégal sunu borom subhanahu wa taala at mu jot muy korite di tabaski amoo 4 5 6 fa la ñuy daje di fa julli seen korite ak seen tabaski boobu mbooloo nga xam ne jaamu yàlla rekk leen fa yóbbu mm-hmm. at mu jot mu def tànt boo xam ne dafay daj barab booba bépp mm-hmm. askane la ko maamam waaye nañu ko tuddeel barab bi waaye ñu tudd ko Chérif Ibrahima Haydara ak Tijaan yi nañu ko tuddeel barab bii loolu daal at mu jot ma wax ko te maa ngi yaakaar ni jombul mm-hmm. incha allahu taala dana ami <laughs> waaw alhamdulilah mm-hmm. incha rabbi yéene yal na yàlla mottali ko yal mottali ko eh, xamuñu sax lu ñuy wax ndax lii ñàkk ki ñaan dëgg la wax dëgg yàlla tabaarakallahu fa tabaarakallah kon eh, gàmm gi fi fi mu toll ci jamono ji nga xam ni eh, bari na gàmm yu am waaye bu ñu seetloo gàmm gi ni muy ni muy mel ak yeneen gàmm yi ndax euh, ni organisation bi nit ñi ñiy wuy si lan moo leen di andi ndax woote bi ci télé yi wala woote ci rajo la wala wala propagande la wala lan la ba tax gàmm gi saa yu ñëwee rek ñu ne nit ñi amatuñu fu ñu toog ba bu déwee ne dañ koy gën a yokk lan mooy secret bi secret ba day maa sunu borom dong koy xam de <laughs> waaye waaye xam naa ni Chérif xam naa ci moom loo xam ni su ma ko waxee wax dëgg yàlla du neex a weddi Chérif bu sañoon jullit bi yépp nekk benn loolu man seede naa ko ci moom xam naa ko ci moom xam nga Cherif sëtu yonent bi la alayhi xam nga Cherif Cheikh Alxaaji Abdul Aziz maam Abdullah tànnoon radiallahu taala def ko muy léppam di maamam di baayam di wasiilam Cherif gëmewul kër Seydil Xaaji Malik radiallahu anhu Cherif masul woote dara ngir boppam. lu ma sa ñëw mu verse ko ci compte si jël Hajji ak i njabootam radiyallahu taala anhu fexe na ba wane ni moom de amul frontière ci kër Seydil Hadj Malick si radiyallahu taala moom lay wuyee moom lay waxe moom lay jëfe it te moom lay jëflantee ku muy jëflanteel fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiina looloo waral wala bokk na ci li waral su wootee ku masa woote lu mel nii loo sori sori sori boo ko ko yëgalee Chérif taal na otoom wuyu ji la sagal la ca bés ba te wuyu ji dafay def ngir jëmmi yàlla subhaanahu wa boo gisee gàmmu bi di fi gis njabooti lislaam bi yépp mm-hmm. ak kër maam borom Tuubaa yi radiyallahu taala anhu ak kër maam Seydi Haaji Malik Si radiyallahu taala anhu mm-hmm. ak bokkam yu tedd yi di xulafaaw yi ni moom mm-hmm. fu nit dana fa jóge fa la sunu xaalis xëy na ñuy àndandoo di walwaleendoo fa tabaarakallahu di wuyu si Cherif Ibrahima Aïdara lii firndeel ni li ma la wax ne bu sañoon ku gëm yàlla dëggal maamam ci li ko yàlla yoon yónni bu sañoon ñu bokk dajaloo ci benn ëtt benn firnde ji bokk na ci li ma lay bëgg a wax mooy Cherif tudde na maam borom Touba doom fan la ko ko tuddee ca te booba maam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu taala anhu ma nga fa bég ca lool moom it sérif yi tiim yëpp loolu la ba tax na boo demee tuubaate shérif place am ma nga fa shérif boo demee tey njaasaan mhm. danga naan fa la bokk mhm. boo gisee lu mu wax di kalanteeg shérif bu tedd bi Sidi Mokhtar Kunta di ko tooñ nga xam ne ak jaxasoo la mm-hmm. ànd la tamit di ànd bu dëggu mm-hmm. yàlla subhaanahu wa taala boolee ko noonu foofa shérif mm-hmm. boo demee kër maam Abdullahi ñas radiyallahu taala anhu kenn umpaliwul ni mu demante woon ak ku baax ka di Cheikh Alhaaj Ibrahima Sall mi nga xam ne maam Cheikh Alhaaj Ibrahima Niass lay nooyee ci biir ak ci biti radiyallahu taala anhu gis nga ni shérif meloon ak moom ba gàmmu gi laata muy nekk gàmmu conférence la ko daan def diggante tàkkusaan jontuis ba gee ba ay deux heures du matin ku fa daan nekk Cheikh Ibrahima Sall ak njabootu fa tabarakallahu këru diine yépp te kenn ku ci nekkit foo woo shérif shérif taal na otom ak lu foofa sori sori moo xam bogg la ci kilifa ga di sëñ Abdourahman moo xam dal moo xam fu mu mën a doon shérif taal na otoom dem wuy jëla sagal la ca loola loolooy li waral ba gàmmum gi bu ñëwee mm-hmm. wax dëgg yàlla yëg yëg ba ko yëgloo di wuy ñëpp mooy yëgloo tamit jaamu yàlla yi ñuy walwalendoo di ko fekk si fii jaamoo kàtt waaw su tabaarakallah bokk na ci li waral eh, géej ba géejewaay daj ñu ngi wax ni benn tante rek la fi Thierno eh, Bachir Mountaga Taha di ronu muy tante Chérif Ibrahima Haydara bi muy tantal maamam ci guddik 31 décembre loolu lan nga ci yëg <laughs> li ma ciy yëg mooy eh, mbégte mi ma ci am jëkk mhm. di ko def nag muy sant yàlla subhanahu wa e ku tedd ku baax ki nga tudd mhm. di bàyyi Cerno Mouhamed Bachir Muntaga Daha Cheikh Omar di nitu yàlla bu sotti tabaarakallah sunu xaaliqina li ma wax léegi ni cofeel alalu yàlla la mhm. cofeel gi mu am ci shérif shérif am ko ci moom loolu yàllaa ko moom te sang di bàyyi ceerno Mouhamed Bachir def cee nëbbul dara daf ko wane ba mu jeex takk jël shérif ndax cofeel goo xam ne am na ko ci maamam yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam uuf ko yemu ca ca uuf ga mu boot ko yematul sax ci boot gi mais daf koo rogganti faf fa tabaarakallah sunul shérif it góor gi jaral ko lu ne góor gi it shérif jaral ko loolu lépp moo tax lii nga wax ni at mu jot bu ko fi fekkee te yàlla na ko fi yàgg fekk ci wér ak wér li mucc ak mucc leeg dund ak dund li góor geeg teddangaam góor geeg mbaaxam góor geeg darajaam duggam ci biir tànt bi toog janoog ñépp rek yiwu yàlla wu nekk a ngi ca mu xool ñépp ñépp xool ko fa tabarakallah sunu xaalixin bu waxul dara sax faju aajo la ci biir faju aajo la ci biti loolu tamit man it ma yéene ko shérif lool fa ma yéene ko shérif lool tabarakallah sunul xaaliqina eh, lii xakim ba waxoon ni eh, boo amatee loo xamul noo koy def boo amatee loo xamul noo koy def danga koy wax ku xamul nu mu lay def loolu moo tax ci diggante shérif ak Baye Thierno Mouhamed Bachir jeex na Chérif am na lu mu xamul nu mu koy def mm-hmm. mooy tàntal maamam ngir jëmme yàlla mm-hmm. tant bur yéene yaatoon ni mm-hmm. ba fu tant bi tàllee nga moo lii mbaa dana fees ku ne loolu ngay wax waaye li nga wax léegi day fees a fees a fees ba dootuñu am fu ñu toog ñee taxaw taxaw ca gannaaw kon am na lu mu xamul nu mu koy def waaye wax na ko ku xamul nu mu koy def moo tax at mu jot moom itamit mu ñëw ak tabaarakallah sunul na dara jam jooju mu ràngoo ak xëyba gi ci moom xam nga bàyyi Thierno Mouhamadou Bachir su ma mm. ko nee jàkk xool xam nga sama xel ci kan la jëkk a dem mm. ma wax la ko mm. sëñ Babacar Sy tekkam googoog deggam googu mu ni dégg ni sëñ Babacar rek la may jox <laughs> radiyallahu taala anhu waaw ah, loolu daal mu nekk di mbégte di xéewal bu reen ak ci mooy alhamdulilah ah. alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi eh, xam ngeen nit li avant première la wala boog ay mosantiku la yu ñuy mosantu rek waaye la la ñuy yóbbu ca gàmmu ga incha allahu rabbi mooy dàqile incha allah waaye imam bu ñu bëggoon a xam euh, sa diggante ak Chérif euh, lan la lan moo ci nekk. sama diggante ak Chérif. mbir yàlla moo ci nekk. du ci man du ci moom. yàlla moo dogal. cofeel gi dox suñu diggante ak jàppante bi dox suñu diggante ma sopp ko lool ngir maamam sopp ko lool it ngir sama wayjur góor gi Ousmane gi yàlla ko yàlla dolli leer ak i ngërëm Chérif nekk amokaat sama wejur nekk amoo kaat ci sama kër rakk Ibrahima Guèye yàlla na ko yàlla doole leeral kii yërmaande kii ngërëm Chérif ci rombante nii fu ñu rombante nuyu li yonent bi wax ne alayhi salaatu wasalaam wa an talqa axaaka wa wajhuka ilayhi mumbasitun loolu dox suñu diggante Chérif fu ñu mas a jàndoo kanam nga day leer nañ ñu leeral ñu nit suñu kanam soppante ci loolu am bis mu jóge ci kër faama mhm. bii di soxnaam yàlla yàlla dolli ci moom leeri kiy ngërëm romb amookaat jaar ci góor gi nuyonteeg moom maa wax ko sam papa mu nuyonteeg moom ba mu demee sam papa ni ma kii sang piir la tabaarakallah sunul xaalihin te boobu ñu nekk bu baax guur gi nekkoon mag moo xam ni yàlla ko mayoon seetlu yàlla ko mayoon seetlu lu mu wax rekk boo ko toppee fa tabarakallah sunu na mooy noonu te loolu mu waxoon li ko firndeel ma gën ci fonkati shérif mm-hmm. mooy shérif ku am kóllëre la ku am kóllëre la soo ma laajee lu tax ak fu ma teg wax ji mhm. dama lay wax ni mhm. demal ca kër googa mu doon dencee faama mhm. ba faama jiitu ko fa ñu bokk jëm ñun ñépp tey Chérif soppi na ko zawiya kër ga di dégg allahu akbar suba ak ngoon naasiril xaq bil xaq laa ilaha illa yiw yépp di fekki faama Chérif ku am kóllëre la shérif bu jubadi woon la mu def ca kër ga ba mu mel nee tey kon neneen lay deme waaye shérif jub na shérif baax na shérif am na kóllëre shérif tabe na shérif néeg na def lu baax néeg na def lu rafet <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin xam naa ni li des ci waxtu yu bariwul tabaarakallah kon euh, mi ngi noonu ñu yàgg dégg kàddu yi mu yëkkati teg ko ci sunu sang bu tedd boobu mu yàgg a wax moom it lu mel noonu ci Chérif Ibrahima Aïdara ba am na ci yoo xamante ni bi sax léeg-léeg nit ñi laaj ko bi ci bu mel bi mel bu bu mel mi mel nii bi nga xamante ni bi yàgg na ko wax ni Chérif Ibrahima Aïdara médiateur la ci diggante borom bi subhaanahu wa taala ak jaamam yi baat boobu tey ba ñu ko bëggoon bu ñu bëggoon nga tojal ñu ko tuuti lan nga ñu ci mën a tojal xam nga ca gàmmu daaw ga dama ko ñaan ni ko balaa ku baax kee tàmbali imaam maam góor lay moom yaru lool it baax lool te set xam-xam te rafet la ko fa tabarakallahu te wér la ko mhm. maam ngóor mm. xam-xam bi set na fa tabarakallahu rafet na wér na te yaruna it <coughs> ma ni ko balaa ku baax kee tàmbali imaam maam góor kàddu yu gàtt rek laa bëggoon a bu yëg-yëg loon bu ma amoon mm-hmm. te waroon koo génn mm-hmm. Serigne Cheikh moo ne radiyallahu taala anhu ku xurfaan nañu la may nga sa xët mm-hmm. am na lu mu cay def am na lu ma yógoon waroon koo génne ba waral kàddu gi ñu may laaj ngeen laaj ma ko tey mhm. jiboon fa ndax dama ni woon bu ñu amee seetlu mhm. ku am yëg-yëg di nga yëg ni fii waxtu yu tollook ñun mhm. dafa mel ni sunu boroom digganteem ak jaamam yi neexatul defe naa noonu laa ko wax woon te moom subhanahu wa taala du tooñ moo sañ lépp waaye li muy sañ sañ sañ lépp waxal na boppam ci xadisul xursi ni inni xaramtu zulma ala nafsi ba tax wa jaaltuhu muharraman baynakum dama xaraamal tooñ ci sama bopp duma tooñ mukk kon digganteem ak jaamam yi bu melee ni neexatul tooñ bi fu mu jóge ci jaam yi la tooñ bi jóge ma wax ci biir loolu ni ànd ak loolu lépp ma ni sunu boromit it yëg naa ni bëgg na juboo ak jaamam yi bëgg na juboo ak jaamam yi juboo rekk la bëgg mais jaam yi mel ni ñoo bëggul waaw day moom juboo rekk la bëgg juboo rekk la bëgg ci waxin mu nga mu nga tàllal loxoom ba di xaar ku ñëw teg ci sa loxo ngeen jubo xam nga waxuma la jaam yi waaye dañu wax ni keroog ba mu génnee iblis aljanna ba iblis jël ay dëbësam di génn aljanna xam ne amatul dara ndax la fa nekkoon yépp yàllaa ko moom daf ko ko terale woon waaye comme baadoolo la yaree dugg la sunu boroom génn ko ma dégg ci sunu responsable moral sëñ Mouhamadul Moustapha Sy mu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum yal na yàlla dolli ci moom wér ak wérle mucc ak mucc leeg dund ak dundule mottalil ko yéene way juram ak mbokkam yu baax yi ci moom ndeysaan ma dégg mu wax ni keroog ba Iblis wane ginnaaw yàlla di dem nee sunu boroom subhaanahu wa ci ñeewanteem mu ngi naan ay waay aka neexoon rek mu taxaw ni ma baal ma aka neexoon rek mu taxaw ni ma baal ma faf iblis topp réyam génn kon yàlla bëgg na juboo man ñi nag bëgg googu mu bëgg juboo moom buur bi mm-hmm. subhanahu wa taala te mi ngi nii di ma dégg mm-hmm. subhanahu wa taala mi ngi nii janoog ñun di ñu dégg te mi ngi mi ngi nii jàkkaarloog ñun mi ngi nii <laughs> eh, bëgg googum bëgg juboo moo ko tax a bëgg médiateur bu ko jubalee jaamam yi mm-hmm. ma wax nag ni médiateur bi mu bëgg mu jubale kook jaamam yi ma ni am na mais kan la kan la may xalaat foofu ba mu xamal ma subhanahu woo taala ci mbaaxam kan xam nga kan la hmm. li ma sama xalaat jox foofu te mu tukkee ca moom hmm. mooy ndakati kenn ku nekk ci jaamam yi yaay médiateur bi ko war a defareel sa diggante moom subhanahu kenn ku ne ci jaamam bi hmm. ngi lay xaar nga nekk di médiateur bi ko war a defaral sa diggante ak moom ndax buur bu yomb jubóol la la sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum radiyallahu anhu waxoon ni buur bu neex a nekk jaamam ndax tedd nga am subhanahu wa taala ma ñu shérif lii mu def mooy wane ni jëf na tey jëfi médiateur kon médiateur la mhm. ndax woote ñi gëm yàlla ak ñi dëggal maamam ñépp daje mu ni at mu jot nañu dem ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa te ma dégg say Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu anhu wax ni jullit bu tolloog dundam ak ci jamono foo xam ne dem na ba boppam nar koo réer wala boppam réer na ko mhm. bu mu seeta ji boppam fenn bu ko bëggee gis mais na dellu ci dund yonent bi seeti fa boppam bu fa làmbee boppam daj ko fa ma ni moo waral tàntu shérif bi kon taxaw na taxawaayu doon di médiateur mhm. pour jubale yàlla jaamam yi subhaanahu wa taala alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi ah, waxtaan waa ngi nii xam naa ni bii bokk na ci waxtaan yi gën a sell ci yi ñi defagum yëpp ndax li ñu yëg alhamdulilahi rabbil alamin nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci toog ak sunu sunu sunu sunu sunu sunu jur waaye sunu soppe ndax cofeel bi ñu am ci moom tabarakallahu waaye di ko toppit nag eh, saa suy waxtaan rek ñu déglu ko ndax bu waxtaanee rek ñu jële ci njariñ jële ci lu loo xamante ne bii dina beesalaat suñu diine suñu diggante ak suñu borom loolu lañu am ci su yëg-yëg ci suñu diggante ak moom ba amuñu ci bu ko defee rek incha allahu rabbi xam naa ni dañuy jéggalu bu baax a baax a baax ndax eh, am na yoo xamante ni bii eh, alhamdulilah daal alhamdulilah ñu bokk sant yàlla ñun ñëpp bu ko defee rek incha allahu rabbi xam naa fi ñuy tëjee rek mooy kàddu gu mujj bi ñuy waxtaan ak moom ci bésu tey bi mooy euh, lan la ñu fas yéene fekk fële ci gàmmu ga incha allahu bi di 31 ak moom it euh, appelam wooteem ci jullit ñi ndax lim fay yëg ak lim fa xam bëggal koy jullit ñëpp naka lan la ci woowee imam mooy ñu ngi yéene jullit bu ko mën fa tabaarakallaahu te mën koo teewe ñu ngi woo ñépp ci ñu teew si ko ndax yiw rekk a fa nekk yiw rekk a fa nekk te yiw lañ fay jële xam nga sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum radiyallahu taala anhu dafa wax ni laa ilaha illa allah fu ñu tànte la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko yégee ak buñ ko yëgul jaar na fa moom yonent bi waaw suñu Cheikh a wax loolu buñ ko yégee ak buñ ko yëgul jaar na fa ndax neen du fa yàgg nag du fa yàgg nag nee may ñaan la ñëpp ñëw te su boobaa ku dugg ca tànt ba na nga defar sa toogaay tey teewlu mhm. teewaayam moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax dañu dul xam ban heure la fay jaar jàll alayhi salaatu wasalaam mais na ñëpp ñëw xam nga ni moos fu ñu tànte la yonent bi mm. jaar boobu Seyd si Ahmad Tijaan al wax ne dana fa jaar mm. ma ni fa fekk texe nga benn werante newul ci loolu <laughs> ku fa fekk rek texe nga say mbirit baax na say mbir baax na fa tabarakala sunul xaaliqin di ci woo julit yépp na góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla nañ ko bokk teewe ci biir wér ak wérle mucc ak muccule dund ak dundule di ñaani nit shérif yàlla defal na ci moom wér shérif ak dund am na njariñ mhm. yàlla defal na ci moom wér defal na ci ñoom wérle wax ji bari na wax ji bari na wax ji bari na waaye Cheikh Ahmed Tidiane Sall Maktoum noonu na hmm. góor Jibril Gueye Samba Ngóone hmm. mooy sama magu papa moo ko ne woon Cheikh am na koo xam ne subalewul balewul hmm. lépp yàqu kon sëgg leen ñu sotti leen mbarit mu mu bale te kii bale yàlla la kon sëgg leen ñu sotti leen mbalit mi wax ji nag bari na te ñu ngi waxee nu ne di defee nu ne wax dëgg yàlla waaye cofeel gi mu am ci boroomam am ko ci maamam cofeel gi mu am ci boroomam moom Chérif mhm. am ko ci maamam na def la sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ci wàllu bàyyam sëñ Babacar Sy hmm. jaaltu lahu xubbi makaana shikaayati hmm. lu ma narkoon metti hmm. ci yoo xam ne ñu ngi ma koy wax di ma ko tooñ diigal naa ko ci biir cofeel gi nga xam ne am naa ko rekk ci Babacar Sy ngir jëmmi yàlla ak ngir yonent bi jeex na loolu rek la nañ jël yëpp rek diigal ko foofu te xam ni it jamono doy toll foo xam ne xëj na jaamu yàlla di jaamu yàlla ga nga xam ni mooy bi war mhm. li Serigne Cheikh naan l'islam pur et dur amatul fenn mhm. l'islam bu ñu négocier rek moo fi des noonu la ko waxee mhm. l'islam pur et dur suñu cheikh nee amatul fenn bu ñu négocier moo fi des te nee ñi ñuy yaakaare ca ñoom l'islam pur et dur nee maa leen xam drogue la ñuy dunde mu ne moo tax l'islam pur et dur amatu fi bu ñu négocier fi am te ba ñuy négocier nag mag ñee koy def dangay doon njaboot ci mag ñi yàlla jëlal la sa ngëm gii àggul ci seen ngëm bu dee lu wér ci yow mu mottali la jël yéene sa yéene bi yéegal ko ci seen ngëm ga ñu dem yóbbaale la géew xam nga yóbbaale géew moo fi des mm-hmm. yóbbaale géew moo fi des du dëgg mm-hmm. moo tax bu jamono tolloo foofu nag nga xam ni sellit ak jaamu yàlla sax day dem day dem mm-hmm. ndax yi xew kenn xamul lu mu doon dangay def yoo xam ni walla boog ngay jànkonteeg yoo xam ni hmm. moo lay yéege ca yéegukaay bi te loolu soo muñul doo ko am hmm, hmm. xam nga ku wax ci yow safaan rek boo fayiwul boo fayiwul delloo ko ca yàlla mais est-ce lay doon day sëgg nga tegu ci kawam di xaar keneen ku waxati ci yow nga tegu ci kooka ba bëgg a àgg ci yàlla ah, waaw waaw te kat ku wax ci yow safaan ba yàlla sëggal ko ba nga jaar ci kawam boo tontuwul doo jaar ci kawam rek jàll dem déedéet demee noonu ak kese kese lu mu baax le woon danga koy yóbbaale loo bon la woon di loo ñaal ñu sëf ko ko moom hmm? di xaar keneen waxati ci yow safaan nga féetoog yàlla rek ne pat kooku it sëgg nga jaaraat ci kawam di xaar keneen ku wax nga jàll dem moom it yóbbaale lu mu baax la woon loo ban la woon ñu sëf ko ko xadis laa la wax de wa in imruun chatamaka la yonent bi wax wa ayaraka bi amrin laysa fiika fala tuayirhu bi amrin huwa fiihi wa daahu wa baaluhu wa ajruhu lak wala tasubanna ahada lii la yonent bi wax nee na koo xam ne xalaat bu wala làmmiñ wu ñaaw yegg nag moom fu mu la waxale ci safaan loo xam ni wóor na la sa diggante yàlla ni meloo noonu hmm. wóor na la sa diggante yàlla ni làmminam rek moo ñaaw ak xalaatam waaye meloo noonu hmm. wa inimruun chatamaka wa ayaraka bi amrin laysa fiika hmm. yonent bi nee na boo nangoo may sa kilifa ay tuayirhu bi am amrin huwa fii bul ko waxal yow loo xam ni safaan la te nga xamal ko ko bu ko ko waxal kaay ma digal la nay def boo bëggee ngay sama njaboot may sa kilifa ñu ne ko yaa rasulallah sa boobaa nu ñuy def ay tuayiru bi amrin huwa fii mu ne waddaahu bàyyi ko mhm. bul tontu bul fayu bul wax soo defee loolu yakunu wa baaluhu alayhi mhm. musibay wax jaag lépp ca moom lay xëpp dellu ca moom wa ajruhu lakk lu mu baax la woon yàlla jël jox la wala tasubanna ahad yonent bi ni ngal la waay bul ŋàññi kenn bul xas kenn bul sikkal kenn waaw tabaarakallah sunul xaalifi <laughs> alhamdulilahi alamin loolu de eh, bi ñu dalee gàmmu gi boog ba léegi yaakaar nañ ne xadis boobu kon eh, ragal nañ nii Chérif Ibrahim sang bi dund na ko ndax at mu jot rek njaboot jóge fu ne ñëw muy gën di yokk te at mu jot ñu waxal ko ba nit ñi tabaarakallahu ku ne di wax waaye du tee bu gàmmu gi jotee rek ña doon wax ak ña ñu doon waxal ñoom ñëpp dañuy àndi ñëw si gàmmu gi kon xadis boobu tabaarakallahu eh, yaakaar nañ ni Chérif dund na ko mbokk yi mbokk yi ñuy topp ci Chérif Dabakh TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax waaye di leen dig daje incha allahu rabbi ci yeneen i émission yoo xamante ne bii dinañ ko def ak ay kilifa yoo xamante ne bii nii imam Moussa Gueye waxtaanee ak ñun noonu it incha allahu rabbi la ñu bëgg a waxtaanee ak ñu ci des pour rek nit ñi xam waxuñu pour. Eh, jànni kenn waxuñu pour xuloo kenn waxuñu pour tontu kenn waaye duñu bëgg nit ñi xam eh, yàlla ñiy xam rek lay waxal te ñiy xalaat la it la la yàlla jiital ci ñi muy waxal ñi nga xam ne bu ñu déggee wax xalaat ko xoolaat ko setantal ko ndax bu ñu la indilee ab wax war ngaa seet la ñu ca wax ndax baax na wala baaxul ak kañu ko waxal ndax moom la wala du moom kon tabaarakallahu mbokk yi ñu ngi leen di digg daje incha allahu rabbi ngeen àndoon ak euh, seen mbokk Abdoul Aziz Thiam ci micro bi waaye ci caméra bi seen mbokk euh, Seydina Omar Diop ñu ngi leen di dig daje incha allahu rabbi comme ni ko imam waxee le 31 décembre bu ko kenn tardé na ko ñëpp bàyyi xel ni ko imaam waxee it eh, ku bëgg yonent bi fekk la fa teelal ñëw te xaar ba mu tas incha allahu rabbi ndax heure ba muy ñëw xamuñu ko heure ba muy demit duñ ko xam kon nañu teel a ñëw te toog fa ba mu jeex incha allahu rabbi kon wa axiru daawana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sawa ida yamtaaru min tamri lmadinati qul bairahu